ngir delo ko ginaaw motuway yu bëree bëree jël nañ ko depuis bi ñu amee feebar bi fi ci bir Sénégal ci wéru mars le 2 mars bi ñu genn dañu naan nak fagaru mo gën faju motax lepp lu ñu jëlon ci ay dogal ah taxna na ba tey jii mënuñ wax né fièvre bi dalu na ginaaw dafa gëna jëm kanam ndax bo leen di sétlu le 2 mars lañu ñëk am cas bi fi ñëw si Sénégal jóge bitim réew noonu waxtu wi may wax ak yéen tey jii lu toll si junniy nit ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn nekk nañu ñu nekkoon ak ku am feebar bi ñooñu nag ñu ngi leen di fas yéene dugal ci ay hôtel ngir ñu bañ leen bàyyi rek ñu dem ci kër yi ak di wàll ñeneen loolu li muy wone mooy war nañu fexe ba ñu limité dem bi ak dëkk bi ndax ginnaaw jàngoro bi amagul lu koy faj li ñu mën def rek mooy fexe ba mu bañ a yaatu ndax bu yaatoo ak ni muy wàllee dana dem ba kenn dootu ko attan mu daal di nekk musiba gu rëy goo xam ne dinañu jaaxal te ñu dépassé ndax réew yu bare bare yu ëpp doole fuuf senegal ci wàllu koom ak ci wàllu ay euh, moyen yu kër docteur tey jii feebar bi dem na ba jaaxal leen ba tax na am na si ay réewu jullit yu nga xam ne ñi faatu lim bi bëri na bëri boo xam ne daanaka lañ leen war a defal bu nit bàyyeekoo dellu ci boromam mënatuñ ko def ndax feebar bi ak wàll bi nga xam ne mën na di ko wàlle loolu télévision yëpp wane nañ ko yeneen réew ci tugal ñoom daanaka armée bi ci boppam ndax faatu yi bëri na bëri goo xam ni daanaka ñoo yóbbu cercueil yi ñu daldi leen lakk kon loolu musiba la bu ñu ñaanul yàlla si àdduna mu yegg si suñu réew loolu nag moo tax yéen mbokk Sénégal ma sukkandiku ci constitution réew mi ci article bi ñuy wax article 69 ak ci loi bi ñu jël ci atum 1969 la loi 69 29 bi nga bu jamono mete, wala am wala jafé jafé dem bé bëgg ëpp président de la république mën état d'urgence mo waral ma déclarer état d'urgence jël décret ngir Sénégal état d'urgence bobu dinañ ko doxal buñ koy doxal nak dana jox gouvernement bi ay jumtukaay yenen yuy tax dinañu mëna wañi dem bi ak dikk bi ci digënté région yi dinañ sax mën def li ñuy wax couvre feu ñi nga xamné ne ñoo yor kaaraange réew mi dinañu dox guddi manam bu ko 8h ci ngone be 6h ci suba maanaam guddi gi diggante huit heures si ngoon ba six heures si fajar gi ah danañu interdire nit ñi génn ci biti loolu yëpp dañ koy def nag ngir bu bëccëgee itam même bu doon naam nit ñi danañ dox soxla yi ñu war a dem marché dem marché ñu war a daan seen doole daan seen doole waaye ñu def ko ci anam bu nga xam ne dana moytu ah, daje bu ëpp bi ak ah, maanaam rassemblement yu bari yi loolu mooy li nga xam ne moo ñu mën a fagal xam naa ni feebar bi indi na ay gàllankoor yu bare gàllankoor yooyu nag dem na ci koom dem ci entreprise yi dem ci suñu doom yi nekk bitim réew ñu tudde leen diaspora looloo waral ma jël ay matukaay yu am solo yoo xam ni euh, benn dana jël lu toll ci juróom fukki milliards def ko ci njëndum lu mel nu ceeb walla dëwlin ak suukar ci meew jàppale ko askan wi ci jamono ji ñu nekk loo xam ne dinañ ko tàmbali fii ak semaine bii di ñëw mu nekk action bu gaaw boo xam ne dina law ci biir Sénégal waaye itam taxawal naa benn fonds boo xam ni dañ ko tuddee fonds bi xeex jàngoro ji ak li nga xam ne mooy jafe-jafe yi jàngoro bi indi jëmale ko ci koom-koomu réew mi fonds boobu nag ak li nga xam ne situation Covid 19 indi na ko ci réew mi toll na si junni ay milliards boo koy xool budget bi boo ko xaajee ñeent benn xaaj bi la junni milliards lañu ñu fas yéene mobiliser pour jàppale entreprise yi.

dinañ jàppale itam suñu mbokk diaspora ndax ñoom ñoo daan liggéey di yónnee réew yu bari tey ji kenn liggéeyatul kenn génnatul sax si biti kon daañu jàppale njaboot gi mooy la ma wax ci dund gi waaye itam daañu jàppale waa diaspora bi dinañu xool ministère de affaires étrangères nu muy liggéeyee ak ambassades yi ak consulat yi jaar si daara yi jaar si daayira yi ak si association villageoise yi ak ci ni nga xam ne ñoom noonu la ñu toogee ci diaspora bi ngir ñu andil leen ay ndimbal ci wàllu ndimbal ba tey xam nañu ne entreprise yi amaloon nañu nguur gi lu bare bare ci wàllu impôt ba tax na impôt yi ñu jàll atum 2019 dañu waroon ko fay jamono ji lu toll si ñaar téeméeri milliards si suñu koppar ñun nguur gi dana ko teggi entreprise yi ndax ñoom itam situation bi nga xam ne dal na len ci walu feebar bi li euh, presse bi tam bokku na ci secteur yi nga xam ne euh, mbir mi lal na len bi tax ñoom it dinañu xool yan anam lañ leen di mëna a ngir seni liggéey baña am jafe-jafe bu loolu wesso sama mbokk Sénégal ma ngi fatali ni jang doomu jangoro bi du doxal bopam di dem fu mu dem rek doomu aadama moo ko fa yóbbu tey jii maanaam nit moo am jàngoro bi si biir yaramam mu xam ko wala mu ñàkk ko xam mu toog ak ki mbokkam toog ak ki xaritam toog ak ki ñu muy àndal di liggéey walla leen ko moo tax ñu ne ginnaaw amaguñu garab gi faj li ñu mën def mooy wàññi yaatuwaayu feebar bi wàññi itam dox bi ak dajaloo bi lii moo waral ñu ne nañu limité te loolu àdduna bi yëpp noonu lañu xeexee ndax boo ko defulee dana jéggi dayoo te bu jéggee dayoo kenn xamul situation bi te foogoon nañ sax ne du yegg si Afrique waaye tey gis ngeen ne feebar bi mu ngi biir Afrique foogoon nañ ne du rey waa Afrique tey jii doomu Afrique yi ñuul ñu ngi faatu si feebar bi kon nag nañu fagaru te organisation mondial de la santé nee na bu ñu naagu wala yaakaar ne ku nekk ndaw feebar bi du la laal kon daal maa ngi ñaan ñëpp ñu yokk suñu fagaru fexe itam doomu jàngoro bi moom ñu yemale ko xeex ko ci niñ koy faje fexe ba bu ñu respecte lii ñu wax ci dem bi ak dëkk bi te état d'urgence bi dina si jàppale bu baax a baax am nañu yaakaar te ñu ngi ñaan di ñaan kilifa diine yëpp ñaanal ñu ci loolu suñu doxalee ni ñu ko waxee yàlla mën nañoo musal ci bi jàngoro kon nag maa ngi ñaanaat kenn ku nekk ci ñun muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw muy kilifa diine kilifa aada kilifa bu mu mënti doon nañu ñun ñëpp ñu jóg takku ngir ñu xeex jàngoro Covid 19 ngir sauver suñu réew sauver suñu njaboot sauver suñu askan sauver itam. a askanu doomu aadama lii moo doon ci gàttal